ànduma ak moom non dama lay wax ànduma ak moom mais nit aussi. pour moom pour l'histoire mooy. non non non général. non non toogal toogal tamit non non je vous en prie je vous en prie dama ni aussi nit. moog Cheikh Diop yëpp ah? non non d'accord. Cheikh ñoom ñëpp def nañ prison. Ah, à cause travailleurs. dama lay wax nit Cheikh Diop bi muy dem affaire bourse du travail affaire CNTS la woon. mais combat la woon. mais boobu seen biir seen biir kii la woon mais combat la. combat la parce que parce que dama ni la dafa am ay certaine période mooy li ma lay wax état dafa dafa am mainmise parfois ci force boo xam ne da koy sonal soit dalay am à côté côtés temps yooyu lan moo fi nekkoon participation responsable moo fi amoon soo àndul ak état létat état daf lay duma boo ànd état ñu jox la poste ministre tu as un poste de vice président de l' assemblée nationale teale poste d'institution xam nañ bu baax li may wax loolu moo amoon non non du ma tudd tur ah. déggoo la c'est-à-dire quand le mouvement syndical autonome a commencé quand le mouvement syndical autonome a commencé ci la yëf yi affaire yi am maintenant nan la ñu mën a def pour que done boobu changé ñun ci la ñuy nekk di travailler depuis des années e loolu moo nu may amul leen loo xam ne nag mën nañ ko changer en un jour ou en deux jour loolu may wax leneen li ma la mën a yokkal aussi contrairement à ce qu'on pense moi je suis d'accord que syndicat de base ki koy jiite dafa war a nekk travailleur en activité par exemple science ki ko war a jiite dafa war a nekk inspecteur boo xam ne mu ngi ci biir terrain bi di am santé ki ko war a jiite dafa war a nekk kuy liggéey mais centrale syndicale le leadership da ngay acquérir doo xëy xëy rek nekk leader dina toll foo xam ne maturité bi ngay am moment boobu fekkoon danu def limitation yi je te jure que centrale dootuñu amati doole parce que ña am expérience en vécu bu nu ñëwee dañ leen dem dal na syndicat yu bëri. waaw cité nga ko léegi cité nga mbay fàll yi. d' accord xam nga ñooñu bu nu bàyyee dootul Ablaye Ndoye déggatoo ko mais c'est des chances yoo xam ni on doit pas les perdre. d' accord on doit pouval les récupérer yóbbu leen ci centrale yi ñuy continuer di réfléchir di travailler ñun ñu nekk ci base bi ñu continuer le travail. tey fii ay ay ñoom Ablaye Ndoye ay ay ay mbay Fall yi ay Mamadou Mbodj mi nga xam ne ñoom kisem si ko doon te nga xam tey jii mi ngi nekk F24 ay ñoom jante bi ngay wax nii ak ñeneen ñoo xam ni tey ji euh, sawru jiite woon nañ ay organisation non non non non même bu ñu viré non non même bu ñu viré man conviction non chacun a la liberté xam nga man politique ma bokkuma benn parti mais je ne critique pas la personne parce que dafa am choix politique waaw ko neexee am choix politique man xam la xool ci yow booy wax ndax am nga objectivité ci li ngay wax wala amu objectivité man loolu moo loolu moo ma soxal chacun est libre dem ànd ak ku la neex politiquement je hmm. respecte la différence loolu lañu jàngal mais l' essentiel boo toogee ñun syndicalement dañu daan wax sax man bu may doog a dugg si sas j' étais par trois grands partis trotskistes et marxistes PIT LD bañ nañ ko ba ñoom ña fa daan jógee am affichage mais ce que je respectais dans ces organisations syndicales mais lu nu am appartenance politique bu nu ñëwee au sein de l' organisation dañuy summi seen mbubu teg ko fële et ils sont des syndicalistes. léegi xam nga état fan la naxee intersyndicale yi. mu jëlee seen i leader ku ci mu am. Mhm. fu la tabb. Mm-hmm. bu la tabbee. Mm-hmm. di la fay. Mm-hmm. mais looy waxati. mais ko moom xam nga moo tax ma lay. conseil économique social vous faites de la confusion. bu conseil économique environnemental voilà jëm baal ma ñëw ci ko moom bien au contraire. le conseil boobu mu leen tabb. may pour nga xeexal leen may ma mayuñu ko jël di la tabaat pour mayuñu ko état mayuñu ko bien au contraire état dafa nangu lu nu moom xam nga tax ma la état dafa nangu lu nu moom. le conseil économique et social. man pour man ci élection yii nii. may ma rek may ma may ma may ma may ma le conseil économique social ne devrait pas être waruloon nekk chambre boo xam ne c'est pour caser les frustrés des élections législatives nañu waxante dëgg le conseil économique social dañuy def seen liste war a dem élection ñu ne la non noppil même bu jàllul bu eh, bu kii ñooy dinañ la dinañ la nommer par décret alors que le moo mot conseil économique et social c'est quoi mooy ñiy conseil président li jëm ci économie. maanaam dangay dem ci pêche bi ñi nga xam ne ñooy napp nga jël organisation yi nga xam ne ñoo fa plus représentatif nga yóbbu leen fa. d'accord nga dem ci agriculture nga jël fa organisation yi gën a représentatif nga yóbbu leen fa nga dem santé. nga jël fa ñi fa représentatif loolu mooy conseil économique et social et loolu dama la bu ñu paree fii loolu dinañ ci xeex ba conseil économique social ça ne sera plus l'affaire dama lay wax ça ne va plus être ma rek ça ne va pas être l'affaire des politiciens le conseil économique et social n'appartient pas aux politiciens leneen li ngay wax IPRES IPRES ça appartient aux travailleurs la caisse de sécurité sociale appartient aux travailleurs le le le, au conseil du ça n'appartient pas l'État daf ñuy accompagner mais ñun ñoo ko moom kenn neexalum te ñaanu ko kenn. ñun ñoo ko moom dañ koy jël.